Euh, ci Arafat fa sommes ñu ba édition 2019 30 mars la ñu nekk association des heures uniques pour l'émergence d'Arafat euh, mu mel ni ci réception bi ngeen nekkoon. nu mu fa demee. Euh, réception bi nag euh, jaar na ci yoon ak samay éléments. mu nekk loo xamante am solo la. parce que gan benn la gan dañ koy ganale soo amee gan dañ koy ganale moo tax si leen nekkoon bu bëccëg ba léegi si ngoon si ñu ngoon si tànt bi association bi am liggéey bu am solo bu mu doon si tànk bi di ko faral di ko séddale ay sase ndox ñi nga xam xamante si tànt bi moom ko jógee la ñëw si réception fii nii loolu daal association bi ñu ngi doon koy amal sànq si gannaaw fii si kaw. comme loolu la ñu amal lépp xanaa ñàkkul ne dafa am wàccaay yu ñu ci amal nu ngeen ko doon waajee. koy waajee ak am solo parce que ku xam ziyaare bi xam ne moom bokk na si tund bi xam ziyaare bi ne lu am solo la. ku xam ziyaare bi euh, xam ne association bi da siy participer da siy def am solo. kon donc tey ñu ngi koy waajee ak dugg si kër yi. ñëpp woole ñëpp ñoom ñu ñëw assister li nga xamante ne mooy cérémonie officielle bi. waajal lépp loo xamante ne mooy ziyaare bi. set setal yu am solo ku gis dëkk bi xam ne set setal leen ko pentir leen ko defaraat dëkk bi ba mu baax parce que ku am gan dañ gan ganale ku am gan da ngay defar sa dëkkuwaay ba ñëpp buñ ko gisee man see kontaan kon association bi dafay àndaat rek di nekk ci li nga xamante ni mooy développement Arafat développement Arafat mu mel ni bu ñu xoolee ci biir lu ñu doon jëggaani la ndaw Arafa mm-hmm. euh, seetlu ne mën nañ ko defal seen bopp mm-hmm. loolu yëpp yëpp bu forum nga ci war am. waaw en tant que président. waaw loolu moom loolu moom dañ ci dañ ci am solo lu am solo la. dañ ci kontaan bu baax a baax a baax a baax. parce que eh, ku xam arafa man li ma la ñuy faral ya, di leen wax naan leen si nga dëkk yow yaa ko mën a defaral sa bopp doo xaar keneen ñëw di la ko defaral bon ñun ñoo war a defar arafat waruñ dem wuti feneen ñeneen ñi koy ñi koy defaral bon ñun ñoo ko defar ñun ñoo ñi ñi nga xam ne ñoo fi juddoo keneen ku fi ñëw da nga fay waaliyaan si arafa nag dafa yaatu du ñun kenn kese ñoo si bokk arafa képp koo xamante ni jëw nga fi ne ñëw fi rek fii nga dëkk fii nga bokk parce que arafa dafa yaax ñëpp seen xol yi dañuy ubbeeku masa allah euh, comme kii kii déglu wala boog di xoolaan soxla quelque éclairage wala boog information mhm. ci asos bi fan lay jaar mhm. Euh, bu ñëwee si ki nga xamante ni mooy président muy El Hadj Malick Dramé bu yegsee si man dina am euh, ay éclairage euh, leer nañ bu ñëwee si ki nga xamante ni mooy Mamour muy suñu trésorier bu si ñëwee dina yoo xamante am solo bu ñëwee ki nga xamante ni mooy dina am ay information yu am solo mu nekk loo xamante ni association bi dafa yaatu am na ay paa am na ay mag am na ay xale ñi ñëwee dernière âge mais pardon foofu association bi dafa mel ni bëri na ay célibataire waaw bëri na ay célibataire parce que ku xam célibataire célibataire moom liggéey nga xamee gaa ka moom amul jabar mais liggéey nga xamee célibataire yi ñoom dañoo mën a liggéey man li may faral di wax rek célibataire yi ñoom ñu am solo leen parce que buñ leen ñàkkoon rek mënoon dëkk bi demee neneen en tout cas moom remercier lañ leen di def parce que initiative bu am solo la ay ndaw bokk ci dëkk gëmal seen bopp ne la koy doxal ci ñoom ñii la war a jógee ñu ngi leen ciy encouragé bu baax a baax kontaan ci yéen ci seen taxawaay jërëjëf Arafat Info ci Arafat Info nga nekkoon wala bopp ok merci